publicité bëri na ku jug na garabu ngóor a ngay jaay xamuñ bu baax xamuñ buy lore xamuñ bu gën benn garab rekk ngay naan def lu ëpp junne puus mooy poudre magique bi la tudd doy waar góor gu bëgg a def lu doy waar da nga koy jënd poudre la booy naan boo seeree mu génnee ko raxasal la sa deret may la kàttani góor a nga mel ni fas ci sa kaw soxna te amul benn effet secondaire jus d'orange lay àndal vitamine C mu def lu doy waar ci sa ngir jënd bu baax bi amul pirate wooteel ci ñetti numéro yi 77 12 12 wala 77 285 38 38 wala 77 372 96 96. góor gu bëgg a moom kër gi def lu ñëwal jënd yóbbante àq la te ñi may waxal dana danañu xam ne lii may wax kàddu yóbbante la te su ma ko waxut ba nga jóg dem ki ma ko yóbbante dina xam ni ki mu yóbbante matut. maa ngi lay wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di nuyu mbokki jullit yépp di nuyu mbokki taalibe yi di nuyu képp koo xamante ni yaa ngi ci tànt bii te ñaan jii tax laa jóg kuy dégg rajo bi sëriñ bi sa baay maam Baay Ñas ku ko yeb rek amoo jom dinaa wax ñaar nag yu tax ma wax ko man murit la sëriñ Fallu sama sëriñ moom laa yaakaar àdduna moom laa yaakaar allaaxira sëñ Fallu kon li may wax si sa baay dama ko dund su ma ko dund duma ko wax ndax man li may wax dama koo gëm te ci internet lay wax àdduna bi di ko seetaan te bañu ma mu dem sa kanamu sëriñ Muntaxa sa baay ku ko yëpp amul jom si réew mi ak bitim réew damaa dem këram gu ñuy wax bronze sa Amérique maa fa dem sa Amérique États-Unis waaw fekk fa ñoom Bamba Sall booba damaa réer si terrain bi war a jëm New York réer ci terrain bi war a jëm 116 terrain bi wàcce ma foo xam ni xaw ma fa benn sénégalais gisuma fa benn sénégalais ay nit ñu weex rekk laay gis ma waaru nag te dégguma anglais maa ngi wax lu doy waar ma ne man de dégguma anglais te ñii ay nit ñu weex lan te gisuma fi nit ku ñuul gisuma fi sénégalais. am na benn jàngkatu maam Baye ñas bu may déglu ci sama téléphone defe naa sëñ bi wax na léegi turam te sant juuf ah ku mag la waaw ngi way lu garaaw sax waaw ma ne man de maa ngi déglu maam Baye te dégg naa ñu ne maam Baye Amérique dafay bari doole maa ngi ñaan nag ci dara jàmm ci dara jàmm. yal na ma nit ku ñuul fekk fii ci dara jàmm rek ñaanu ma si dara jay kenn dara jàmm laa ñaan ndax booba waaru naa te nag nitu yàlla bala ngaa xam dara jàmm si laa mokkale bayit bi tabibi xaribun hal saqamiya tasmaw yuxaabiluni yowman muqafal musaffar araani isa ma jitu yowman muhammadan taxaqaqa ahmali kama atawaqa ci laa ko mokkal kon li may wax dëgg la ak yeneen nag yu ma mokkal si moom yoo xam ni su ma ko doon tari fii ñu ne xanaa kii du murit ndax daf ma jëral gëstu ko moo tax ma ne la sa bàyyi ku ko yëpp amut jom yow ku la yëpp amut jom réew mi ak bitim réew fi ma taxaw di jënd kafe di naan am ko wàcc si terrain bi sol mbaxane yi def kaala gi ma ne kee day nuru nag waa kër maam baay di ma naa dox jëm si moom moom mu dox jëm si si man ndeke day jënd kafe ma daal di ne salaamaaleykum di xool ndax daa dégg olof mu ne ma waaleykum salaam sëriñ bi noo def ma ne ko ah man kay ni ma def lijjanti nga ko mu ne ma foo jëm ma ne ko dama doon jëm san 116 train bi wàcce mi fii mu ne ma damaa jëm suñu daayira bi fii si bronze daayira maam ñas Niass waaye sunu mënee ànd ba sa da ma ne ko bul wax sunu nanu dem si daayira bi ku ma gindi kan laa woo te nag waxkat bi dafa wax ni faj aajo yaa sa gën a gaaw loo wax yàlla mu ne waaw man damay gëm ni yoonu tiijaan dalil ba ak sirr bi bàyyee ko waaw ah, dama ne baaraay wax nag man dama gëm dama dund gëm ni sa baay bu tedd ba du moroomal gaay yi keroog laa xam ñoom Bamba Sall keroog laa dugg si daayira bi jàng xasid ak Serigne Touba gu ñuy wax lam yabdu mislul Moustapha Muhammad sirran wa jaxaral fil baraaya samadi keroot lan ma fa jox xaalis boo xam ni mësuma koo am Amérique bi ma duggee Amérique ba ni ma ko génnee ñu taalaat oto yóbbu ba sama kër 116 Harlem yemut foofa sa ginnaaw suba sa imam bi imam bi fii si Medina Baye ñëw Amérique te sant ñu ne ma ñëw na fi. ma ànd ak ñoom Serigne Khoule dem siyaare ji ko down town keroog mi ngi ànd ak Alsane Mbaye géwél bii ma li may xam na ko bi ma ko jubee dama koo fekk bu sóodu nii tëdd hôtel ba mu dal bàddoo la du fa dugg kuy dem di dajalaatu xaalisu gars yi doo ne si boobu hôtel kuy kalkin ni fii bu ma fi jógee fu ma jëm doo dem si boobu hôtel moo tax yow ngar mi nga Moustapha mii bi nga defee léegi jëfi gar mi da ko wax bi la laajee addiyee ba noppi addiyati xos karaman bi lan siraam wali taqudu abadan xayral maram nga yëkkati addiyee ji joxaat ko say taalibi da nga leen a nawloo ab sëriñ day nawloo ñu am waaye jàpp ñi nga am dof def sa bopp Mamadou def gaa yi maamul yow la def dof bi yow mi yaay gan bi man mësu mën a gis mësuñu nuyoo fenn képp laa lay gis mooy si internet bi waaye tey laa lay gis tey laa la bëgg Tapha mi naw naa sëñ bi nag ma ne ko noo nawe mu ne ma ngar miim yow ngar mi piir nga te ab sëriñ day dox si dëgg ab sëriñ day wax dëgg te yi nag seen tànk yi mën naa banku waaye xel yii du banku su ma nee la ku ko yëpp amul jom réew mi war nañ maa gëm baaraay wax imaama yaa ngi may dégg kon soo ñëwee ba toog te seere ma kàddu yi ma dund Amérique si sa jur wa ma dugg si imam bi jàng lam yabdu ba ma jàngoon mu daal di jóg toog ne ma jàngaat ko ma jàngaat ko mu yëkkati kaal ak boppam gamu gamu kaalaw woon jox ma ne ma sa ndam la ba àjjana kon man am naa cër ci Cheikh al Islam cër boobu nag mooy dox si sama digganteeg Cheikh Ibrahima Ndiaye mi ñu dajale fii maa ko fekk Dubaay. man maa ko fekk Dubaï moo ma jëlal hôtel hôtel 20 jours te nag baadoola du jël hôtel 20 jours dëkk ci hôtel ay at. hôtel bi Cheikh Ibrahima dëkk si Dubaï soo fa demee di nga xam ni maam Baye ànd ak mooma man lii da koy xool na ko yow ku dëgër fit nga mu ma si barki suma sëriñ Cheikh Ibrahima. maam Baye xale bu am jom la Cheikh Ibrahima. boppam la ku am personnalité la te taxawaluwut man xam naa ñuy du bàyyi nag ku fa dëkk si hôtel di dalale si hôtel soo wàccee si avion bi mu boole la naar bu la jël si xamut yaay kan boole la ak ku lay tijjil bunt bi nga dugg si biir defe ni bis booba yaay buur maam baay am na doole fii la jaar ak ba kon duma seetaan daraam teral ma teral ku mu am xaritam yaa gi nii toog Moustapha gi nii li mu joxe ay xar si tabaski dama koo woo moom mii ne ko kaay ma laaj la tuuti Issa kii jox na la xaalis bi nga joxe si xar mu ne ma duma ma deseel dërëm 18 millions kii moo ko jaay xar yëpp nag wii nu rey fii 1 million 200 mille kii ko ko jaay. li amul kenn ku ko jox koo xam ne. bu ñu dee 195 xamu ci kenn. xamul ci kenn. kon yow. man maay jaay maay wax ki am problème man xanaa xanaa xanaa looluy ngëm. xaar dama ko lijjanti dama ko mos. te mbir ah, sama sëriñ te boo ko mosee bu la safee dara da koo ko xam kaaneeg lem mën ta bokk. sa baay daa tëdd njaaxaanaay ku ñëw nàmp du xam ne murit du xam ne tijaan. du xàmme laayeen du xàmme ñeseen kon mu xaddi asamaan la kenn du ne sa moroom toppal ma xool ku nekk na nga yëgee yow mi yaa baax pour nga xam ni man baara nag damaa gëm li may wax yéen internet bi tasaare leen ko ndax man kenn mënu lu ma dara dama gëm li may wax dama xam li may wax xam fi ma koy jaar ak fi ma koy jaarale dama laa wax ne la kàddu gi laa lay bamtuwaatal sa baay maam baay ñes ku ko yëpp amuloo jom boo dem sëriñ amoo jom boo dem taalibi amoo jom maa ko wax yal na yàlla guddal safar ataytu bi sin wii suma ahli wa ildati siraan wa xawla alxaasimi yatajammaw sa bàyyi ko wax mu ngay nuru way wa rabbi stajib waltu kamil man na waytu la daat tuballati bi ko tub naa fi ka bunyaana fexeel ba booy wax la ngay wax nanga ko xam bi xurmatil Moustapha man sirtu xaadimahu bi nasmi wa nasri sa jahan suma misaana yow mii yaa baax yàlla yàlla guddal sa fan Cheikh Ibrahima nag na nga ko ñaanal loo ñaan doyut na am centaine de milliards nee na ma sëñ Baara ma ne ko ah ma xaalis bi du pour ban pour nit ñi la. dañuy dox maak moom du Dubaay may lekk ci restaurant bi naar bu ma romb naar bu ko romb mu ne ko Cheikh ma ne ko kii dalaa xama mu def nii poche bi daal di yëkkati sans jox la mu ne ma nii lan ma xamee gis nga nit soo bëggee nit ñi bëgg la te bañ laa bàyyi da nga leen di amal njariñ waxi kese dana baax ju xam kenn xamut kañ lay baax taxut kenn topp kenn ku la mënalul fii bu lay jéemal fee lànkal man sa kanam man sa gannaaw sëriñ fallu yaa réyi mbir sëñ fallu yaa màgg yaa mën góor ñi sëñ fallu ak maam Baye Niass lenn lañu duñu ñaar am na benn photo bu ànd ñoom ñaar di dee ñu yem mel ni ko yorub kaas doo xam kaas ba ku ko yor kéemaan mi ngi yem si maam baay yal na yàlla guddal sa maa ngi jéggulu nag si kàddu yi su dëngee mana sama digganteeg maam Baye Cheikh Ibrahima ëpp na lii mi ngi sant mbokk yi mi ngi sant xare xarit yi Babacar Touré ngi nii toog digganteem ak maam Baye dara doxu si faafaa ngi nii toog digganteem ak maam Baye dara doxu si mbaane ñasa ngi nii toog di jigéenam jóge ba dakaar ay jigéenam àndandoo ñëw sagal ko mu ne ma ñasee nii si laa bokk ñooy su may sëriñ waaye pour ma xam ni sama bëgg sëriñ Saaliw dëgg la indil ma jànkatu xasaayit ñu wayal ma sëñ Touba ñu indi sëñ Xaadim Kebe ak sëriñ Njaase mii sëñ Xaadim mi ngi si yoon wi ñii buñ fi waxee leen fi wax doy na kenn du fi wax lu ëpp sikkuru laa waaye lii su ma ko waxutoon du ma doon gor wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu